gisee neneen doxee neneen inna al insana li rabbihi lakanuud yàlla lépp ci doomu aadama dafa ingrat lakanuud ma bind muy jaamu keneen may xéewal muy sant keneen di sant yàlla kon ngir bañ a bokk ci loolu tax kon ñun bisu Badar ñu war koo feete war koo sante yàlla muy ndigalu yàlla bu ñu yàlla digal ci aaya bi gannaaw ndimbalam kon cant googu la ñu war a tënkee xéewal bi amoon keroog bàttara muy ndam loolu sant ma koy tënk sant xéewal teraanga ma koy jiitu beneen bi bu ñëwee ci sant dañ koy xaaj ñetti xaaj ñetti façon la am sukkur bi lisaan sukkur bil arkaan sukkuru bil janaan sant yàlla mënut a amee ci lu muy si ñett yi fii bi njëkk mooy sant ci làmmiñ am na ci lenni ahlul loxo ñu ne différence diggante ak sukkuru walhamdu sukkuru ñu ne moo gën a matale waxte boo seetloo teraanga yu mag yëpp li ëpp yàlla daf koy tëjee daf ci santaanee ci baatam sukkuru xam ne ëmm na xamd te romb na xam xamdu dafa xaw a jege ak matxu moo tax ñu bokk ay xaraf duggante ay xaraf kon mu xamdu mooy sant ci làmmiñ ni wax moo tax ci fatiha mu ubbee alhamdulilahi rabbil alamina ngay wax sant sa borom kon sant bi njëkk mooy sant ci làmmiñ boobu li koy wane eh, dalil bi mooy waxi borom subhanahu wa taala wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis tahaddus bi ni'ma sukkur kon yàlla na yonent bi xéwal gi ma la jox teraanga bi ma la jox alquran sunna njub mi na ko waxtaanee ngir sant yàlla boobu mooy wàccuwaayu sant ci làmmiñ beneen bi sant ci cër yëpp cër yëpp ànd sant yàlla topp yàlla matale ci wàll yëpp mooy sukkurul arkaan mooy bi yàlla sant daawuda ak ñoñom i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiya shakur ee yéen ñun daawud ee yéen ñun daawud na ngeen sant yàlla li ëpp na ci sama jaam duñu sant ñu néew ñooy sant kon mel ni dafa wax ñun ñi i'malu aala wa ahbaabahu wa ixwaanahu wa jiraanahu sukra kon mooy sant ci cër mooy wax ji nii mooy déplacement yi ñu def yëngatu yeeg lépp lépp mooy i'malu aala daawuda sukra teraanga jaan boo ko ñii de ci lii lañu rawe woon ci gëm yàlla bu sax ci pas-pas ci wax ko ci jëfe ko ci am kilifa yonent bi def ko muy seen njiit ñu nangool ko wéyal ation laa wa ation rasula àndoo mbokkoo benn jàppoo lëngal tànn seen mbokkoo ci yàlla toroxlul yàlla ñaan yàlla tànn xam-xam yëpp nekk ay ndaw yu jublu ci yàlla yëpp buñ ko résumé tënk ko talxis ko mooy li mën a tiire lenn ci duruusi xasatu badr al kubra yenn yàlla nangu jaamu yi nangu ñaan yëpp te incha allah bu mbokk yi jëlee parole ñu mën a tëj nag jotaay bi euh, xatmu alquran karim tëjee mbir yi ñaan comme ni ñu waxoon léegi rek xam tamit ne fan yi fan yi ñaan la weeru yëpp weeru nasr la sa ramadan loo ko am na lu ëpp juróomeen fukki tur juróomeen fukki tur yoo xamee ne day wane garaatu weeru koor bokk na si muy euh, weeru nangu ñaan la weeru nga ñaay la weeru ndimbalu yàlla kon ñu ngi ci fane ñaan te rawatina bésu Badar ond bi yonent bi taxawoon taalal loxo ne ko yaa rabbi in tuhlik haasihi isaabata fa lan tu'bad laka fil ardi abadan ilaa yawmil ba mbooloo ndaw mii bañ raaf ci kaw suuf dootu amati mukk ku taxaw di la wéetal di la jaam kon ñaan yi mu ñaanoon bu yàlla nangu ko ond bopp ba li ci kaw jaww ji te ci waxtu bi la woon ci bis bi la woon kon ñu foog nu waxtu woo tëjee ko suñu jotaay bi ñaan yàlla yàlla aj ko ci ond boobu jaaree ko ci nangul ñu nangul jullit ñëpp ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bëgg yàlla te jublu yàlla nee na loolu rek mooy jëriñ jaam ci àdduna mi ngi nekk comme nee na ni ko suñ mbokk oustaz Alioune Badara Ndao waxee léegi nee na wax la boo xam ne képp ku am yëg-yëg ak dégg-dégg da nga xam ne wax na wax joo xam ne wax ju bayeekoo ci yàlla la jëm ci jaam yàlla yi te nee na daanaka soo ko seetee li ëpp ci ñun dañoo gëlëm xamatuñ fuñ jëm lu waral loolu mooy mooy adduna mu ñàkk solo mi rek adduna ndax nañu bëri ci ñun neex te nee loolu de amul benn njëriñ lu may pertement rek yàlla ñu jàll musal nee daal ci tënk daal li wax mooy nee na képp ku ñëw ci jotaay bii toog fii moom sëriñ bi mi ngi yëkkati kàddoom dina baalaax te fi nee na moom mi ngi baalaax ñëpp ni mu koy waxee daa ima di wax ne daa ima ni mu koy waxee jëmmum sarax na ko nit ñëpp lu waay wax rek baal na ko ngir jëmmi yàlla ak jëmmi sayiduna muhammad nee na gannaaw loolu nee na bokk yi bàyyeekoo ndakaaru ñi béye ko walla dex waalo tund wii kawoon li ñu wër yëpp ak su bokki medina yi ak ñi béye ko fu ne ci biir Kaolack nee na mi ngi baalaaxal ñëpp di gërëm ñëpp nag nee di leen ñaanal yàlla nee na dem na sax ba gëm na ne lottu na moom ngir teraanga bi ni mu pour man leen a ñaanal yàlla waaye daal jaam lépp lu ko jaaxal ci lottam gi na ko bàyyee yàlla mi am kattan te man mi ngi leen di bàyyee yàlla borom kattan loolu nga ne na na ci làmmiñu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu nga xam ne moom nee na bàyyi naxut kenn kanaa ku bëgg réer rek yaa réer wala nga naxu waaye moom lépp li mu war a wax ak njaboot gi Cheikh Ibrahim wax na ko radiyallahu anhu nee la bàyyeekoo fa yàlla képp ku soxla loola dangay ñaan rek nee na waaye dem ca magasin yi yàlla ya jël fa lu la neex jox ko ku la neex ci nim la neexee nee na moom dayob xam-xamam xamul ku mën loolu wala ku mën def loolu kon daal dafay delluwaat di dëggal waxi seen bi rek nee na nee na bokki jullit yi nañ bàyyante xel nee ku defalul yàlla dara doo am fa yàlla dara ku defalul yàlla dara doo am fa yàlla dara comme ni ko sëñ bi waxee nee li ëpp léegi ci nit ñi mooy waaw mooy déet déet mooy waaw nee loolu nag musiba la yàlla ñu yàlla musal nee na li yàqu lépp léegi ci jamono mooy waaw joo xam ne déet la ak déet joo xam ne waaw la gan nee na gannaaw loolu li sëriñ bi wax nee na oustaz Alioune Badara Ndao ci nax gi nax nit ñi boo demee tey nee na école yaa ngi fees dell foo tur ña fa tax école français buñ paree dafa leen ay kër defal leen ay cantine di ca def dund di fay ñeneen di jàngal di leen toppatoo manqué dara. te buñ manqué dara. ut ay xeer. uti yet génn ci mbedd mi. di sànni école bi ñu doon jàngee di lakk kaar yi di arrêté oto yi ñu nekk élèves ya geref nañ. te daara yi gouvernement bi mënuñ ci ñoom dara. defaluñ leen dara. te ñoom defuñ dara. te nag di aaye nag ne buñ yalwaan nag. te defaluñ la tabaxuñ la fooy jàngee fooy ki lay jàngal. uturuñ la kanti mënuñ ci yow dara nee na doo fi yalwaan nag. te ne ñoom ñii wax loolu nag ñu ne ñoom ay jullit lañu laa ilaha illa allah nee na ñi ngi ñaan yàlla yàlla mi mën a soppi yàlla na yàlla soppi loolu te jaare la ko ci suñ loxo yi ñun ñii ak suñ bëgg-bëgg nag ñun ñii ndax badarkat buñ toogoon madina rek banque seen loxo jéemuñ dara ñaanuñ dara konoon tey jii dara du xew bañ koy wax fii kuy def dara da ngay séntu dara foofa yonent bu taxawoon sallallahu alayhi wa sallam ca Badar moom sëñ bi nee na nemmeeku na ko def fa ñaari rakk ngir naafila ak xeeñtu fa sang ba jaaroon sayiduna Muhammad waaye li ñuy naxee léegi mooy dem nañ tey ba mu ëpp ñu doole. ñu miire ko ba mu wër. ñu ko tey ba mu wër moom ba daal. su noonu noonu lislaam ñoo ko def. wax ne or a fa feeñ ay compagnie américain ñoo fa ne di ko génnee te loolu islam rek ñoo ko wax. mooy li sëriñ bi waxoon léegi rek loolu moo koy dëggal rek ne na ustaas waxoon léegi mooy fi mu ne ñu baax ñi te bëri lool am nañ lool waaye xol yi dëgëruñ nee ndax li ko waral mooy ñàkk óolu yàlla ak ñàkk doyloo yàlla di waa badar amoon baqeebu ba nott te day nee na nañ baante ngir jëmm yàlla jàppante ngir jëmm yàlla yërëmante ngir jëmm yàlla tabaxel bokk gi nee yàlla moo def bokk gi te wax nañ ko sàmm te nee na te loolu day nee na dafa tum ranke léegi nee léegi mbokk daal mooy xaalis rek ki ñuy wax xaalis ñëpp moom la ñuy wax ci kër kër rek xaalis rek te nee na am xaalis baax na nag waaye am xaalis bu baax it baax na lool waaye am xaalis yàq bokk gi sa bopp yàq sa bopp loolu musiba la yàlla ci yàlla musal te looloo bëri léegi. te nee na léegi loolu. nee na gannaaw loolu. nee na ni mu ngi baal wax mbokk yu teew yëpp ndax toogaay bi yàgg na tokoor la nekk. di gërëm dëkk bi yëpp. di gërëm waa dëkk bii di Daaru Habib yëpp. nga xam ne ñoo formé ñaari association yi ci bi tuddi Khady Thiam ak Habib Thiam. nee na ngi gërëm ñëpp ñëpp ñëpp. di gërëm waa dëkk bi dëkkandoo yi yëpp. huwa allahu ahad.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 ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد ببلوغ الشهر رمضان ولك الحمد بحضور ليلة البدر الكبرى اللهم لك الحمد باجتماع في يوم البدر الكبرى